الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا والعاقبة للمتقين اللهم إنا نطلب منك الخبول في عباداتنا وستر عن قلوبنا والبلوغ لجميع مقاصدنا وآمالنا بجعي عبد الله وخديم رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فإني أريد أن العادية نبثة تتحلق في حياة شخص كان يتصور بالتقوى في كل شيء ويهتم بهبارة ربه جل وعلا ويجتهد في محو الأمية عن بني البصر ويخلص لله ولا يخاف خيره ويتفكر فيما يفعل الأقارب والجيران بل جميع عباد الله وله باع طويل في كل حسنة مع أنه كان يكف عن كل سيئة نية أو قولا أو فعلا وجزاه الله عن الإسلام خيرا بجاذبه وخليله ورفيقه يا أحمد بن خادم الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب ما ma يا yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tàmbalee ci xalifatana di murid sëriñ Muntaxa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te boole ci ak biir moom ak mboolem ñi ma bokkal si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ma gën caa cité sama sëriñ sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké xalifa sëriñ Saliou yàlla na ko fi sunu borom yàggal te ànd ko wér ma jël nuyoo yu sell yu tedd yooyu nag jagleel ko kuy sama kàddu mu nekk nuyoo yoo xam ni dafay génne ci sama làmmiñ waaye nuyoo sëriñ ma baati si la xalifam sëriñ ma ñaaw la muy nuyoo yoo xam ni dana ci jagleel lool koo xam ne waajur la ci moom di sëriñ bàcc si la di ci jagleel xam ne waajur la ci moom di sëriñ Muntaxa si di xalifam sëriñ Mustaf mu lawal nu yooyu yaatal ko ba mu àgg ci mboolem ñi mu bokkal ñaxal ak ñi mu bokkal meewlu ak ñi mu bokkal longoor ak ñi mu bokkal lappe muy tund baakol gépp sëriñ ma paate mi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm kullu xisbin bi ma ladayhim farihun alwa alxuraan mun na ko nit day béggee la ko yàlla may kon noonu sunu cër ci sëriñ Touba lepp sëriñ ma ñaaw moom mi ko fi nekkal nag dunoo yëkkati genn kàddu te amunu ndigalam lu ñuy waxe ci moom lañ koy tàmbalee te mooy ne ci digg ba moom lañ koy tëj ñu di ko ñaanal suñu borom may ko fa nu gudd loolu te ànd ko wér nit day am na melo yi bu nekkee ci moom mu neex a ñaanal mooy moom ku ko ñaanal yàlla na ko xalam dal bu ko déggee dana amin ndax ku rafet xol la ku rafet yéene la ku rafet aw doxin digganteem ay dëkkandoom ak i bokkam la ku fes dell ak ub taalube la ku yàgg a ci ñaxal la ko jeex ci sëriñ Abdou la ku féete ak sëriñ Siidi xalifa bu sëriñ Abdou la kon kàddu yooyu noonu laa ko tàmbalee mu jaar ci sama làmmiñ tey kàddu yu sëriñ ma pàtti si la sang bu sell boobu ma tudd léegi de sëriñ Siidi mu sëriñ Abdou bi nga xam ne suñu borom dafa dogal lépp mbaakoon nañ ci loxoom ndax dafay sëriñ Tuubaa ba noppi ci wàllu mbokk gi te mu féete fi lu ko may loola di ko seetlu ko jafe nag koo xam ne daa wax tuuti rek ci moom loo xam ne ku ko dégg da nga ca nattee lañ waxut mooy ba mu jàng alxuraan fa mu ko doon jànge ñetti kaamil dafa bind soog faa jóge da ko ne xam ne coono jàng alxuraan ku ko mos a def boo bindee kamil xelu waaye fa jóge foofu xelu jóge foofu ngay def waaye dafay toog ngeen la ak ñetteel yàlla na ko son borom yàggal te may ko wér te àggalee ko mooy tam fa mu bëgg àgg jataay bi nag ak waxtaan wi li ko waral weesuwul li ñu baax ni wax ni man arwa xawaliyan fa ka annama ahya la sëriñ Bay Jaxate di wax ni waxtaane yàlla ak gaayam yi wu nit mas am xamal ni ka tëre di dooya mooy bi xamal ñu ñëw nag tànn nag jëmm joo xam ne buñ ci waxee ci moom wax nañ ci mbàkkul gépp ndax dafay mbokkum ñëpp amoon jàmm ak ñëpp yërmandeem ak njëriñam matale woon xeet bi mu dajee la tund wa ñëpp kooka mooy kan mooy ki ñu wax sëriñ Mañam Sylla am naa baay bu baax dundatul yàlla ko yàlla yërëm daf ma daa xam dégg naa ci ku baax moo wax ne Ibrahima mooy tur wa waaye nag askanu mbaakol moom boo leen xoolee ci ñaxal turu ma ñaw yaatu na fa waaye dara neewu ci loolu lu ni la nii la nii la ca tur ya bari bari tur lay wane ni borom turoo day mbër rek kon moom jëmm jooju ñuy wooyee sëriñ ma ñaaw silla te ni ma ko waxee léegi ñu wax ne ci cosaan ibrahima la day ma paate ndumba jeng mooy waajuram ñu gën koo xamee ci turu turu libaas ma paate Ndumba Jeng nag sumbul ndaa faal mooy waajuram sumbul ndaa faal it ma paate aram sàll mooy waajuram ma paate aram sàll ma taar saafara kamara mu nekk koo xam ne ci kanamam ak ci ndajooram ak ci càmmoñam yàlla daf koo may bokk yu baax yom bokkal sëñ ma paate moomu ñu dàkkantale ko ci Ndoumbé Dieng ndax sëñ ma mañaaw sëñ ma taar Marema moom sëñ mañaaw ñoo bokk sëñ Modou Faylou ñoo bokk sëñ Moustapha ñoo bokk soxna Fat Silla Libaas ñoo bokk soxna Joor ñoo bokk ak ñeneen ak ñeneen dafay mbokk bu yàlla def nag barke def ci tiraanga def ci ay bayt ak sekkare ba tur wo ci xam lo ci wax baye bo nga yem ci koko bo liggéey ko duggal dug ci ndax dégg seenu doxine ak niñu rabalo te amo ci lola jaxal da dul yomb waye mbirum musum borom nak dara lu yomb di ca mustaan mom serigne meñaw moomu nak ko takko won ak way juro le de serigne libas xamna sax du ñàkk histoire am ak wuute tuuti ca fan la gane àdduna waaye man day li agsi fi man te ma gëm ko te nangu ko mooy ñaxal daqaar mi nga xam ne moo doonoon sancu sumbul ndaat faal mi jur waajuram foofa la gane àdduna jàngi alxuraan itam ci kilifteefu baayam mokkal ko ci kilifteefu baayam di ko am xam-xam di ko sàmm lu doonoon doonoon koo xam ne kenn la ci jamono doon koo xam ne itam masul nangu yëngal dara masul nangu yëkkate dara masul nangu tëral dara ngir rek doyloo waajuram ak yam ci moom ak bañ koo jéggi ci dara nekkoon ni jëmm joo xam ne ju wegu la woon jëmm joo xamante ne ku jeexoon takk ci jaamu yàlla sun borom ci sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ko xamni digamal ci ahmad bamba khadim rasul dañ ci dik waye dañu andalo ci andaw ba sunu borom subhanahu wa taala dogal limu dogal ci seen diggante ndax fukki at ak ben la fi nek ginaaw serigne bi te defe ni bo xoolee gën aduna ge itam xëy na du ñu lool ndax ki nga xamni dundu na juroom ñet fukki ak juróom di sëriñ Mañaaw boo xoolee dundug sëriñ bi itam juróom-ñaar fukki ak juróom kon day mel ni seen mbir moom sorewul kon moom jëmm jooj yi nga xam ne moom la ñu am kàddu yuñ ci bëgg a leeral bu su ko tuddee xel yëpp day dem ci alxuraan ndax moo doonu xëyam di ngoontam suñ boroom defaloon ko ci loo xamante ne bii ñu bari bëggoon nañ ko waaye boo yeboo ni ñu néew ko man am wala ñu néew sax amuñu ko fa ndax daara joo xam ne dafay mel ni ab sanc ngir bari mbooloo te yàlla def barke ci jàng ba boo bu ñu ci ëpp ci ña fay jàng sun borom dana leen wërsëgal ñu wattoo fa alxuraan te li ñuy wax bala ngay jàngale di yar ko moom am jàngale di yar ba daf ko daan jiitu da nga daa yaru ci xam ci am diine yaru ci am ngor yaru ci nangoo liggéey ba kenn ko jaar ci loxoom jóge fa dib yaa fus mësutaam kon fi ma toll ci kàddu may ñaan képp koo dégg bul xeeb sa bopp jàngal fukki lixlaas ak benn àddiyaal ko ko te ñaanale ko ci suñu borom dolli ko njëggal dolli ko yërmande dolli ko ay leer yàlla ko suñu borom def ci barkab Serigne Touba barkab sang sang sang bu sëñ bi macha allah ci leeral yi am solo yi nga xam ne leeral nga ko ku tedd kooku di Serigne Mañaw Sylla ci ak juddoom ak mu nekkam waaye gën leeral rek pour bëgg a xam Serigne Mañaw Sylla fan la jébbaloo ndax kenn ku ne xam na ne yoon wi li mu baaxoo mooy saa suñu nekkee rek day di jébbaloo ci sëriñ bi. serigne ma ñaw fan la jëbulo sun borom subhanahu wa taala dafa dogal serigne bi bima démé ci tukki bi ba ñibbisi ñëw mbaarkool yàgg ci afra am fa fukki fan ak ñett mbaa fukki fan ak ñeent yu bare bare bari jëbulo nañu fa waye mom serigne ma mi nak nag itteem ak yéeneem dafa nekkon lu sori lu reuy ba tax mom dafa amoon négandiku bi ma mee néegadi ko nag ba sëriñ bi jóge fi jaar famu jaar ba aksi daru salam ba ñëwaat daru mën naan ba jëlé wat fi yóbbu ko gànnaar foofee la sopp sun borom sëriñ meña fara dem fekk ba sëriñ bi jébbalu ci mom ba muy demit dafa wàññi mbokal bakol gep waxtaan ak ni leen wasiila kat dafa mën la ñàkk te du ma dugg ci lu ma waxut ak yéen du dugg ci lu ma andut ak yéen ma de leen yëgal nag sama yitte dama ko jëmee ci fu sëriñ bi ma a ne ma fekk ka fa ngir jébul ci wax nañu ni amoon na juróom-benn ñu mu àndal ñoo xam ne moo leen juróom-ñaareel te xese bi may nettali nag suñu borom subhanahu wa taala def naa bi ma koy bind 2004 la woon ndax 2003 leen ci waaye nag ki ma ko nettali mi ngi dund ba tey jii di koo xam ne Serigne Mañaaw moo jur ndeyam di Serigne Matar Sylla doomi soxna Mariama Sylla bi nga xamee ne nag kon Serigne Mañaaw nee na ci waajtaay woowu bay wut àndandoom yooyu ba ànd ak ñoom jànkuwanteeg la mu jànkuwanteel ci sori diggante bi jànkoonteeg la mu jànkoonteel ci jafe-jafe yoon wi ndax bari anam buma netlé ci gànnaar dama ni bokku ku fi dafa jëm la nga daan dajé ci ay xum xum ak yi dég ak yi ëkk may na caa jële góomu robaale waaye lu baax nag fu mu nekk fa ne dem fa daawul yomb ndax lu baax la sun borom di sange jafe jafe-jafe yooyu ni ko yonent bi salaat na wax ne huffatil jannatu bil makaarih wa huffatin naaru bis sahawat waye dal sëriñ Meew kon ñu gën fi ci réew mi dem na gànnaar ak andandom fekk fa sëriñ ba muy àgg nag dafa dajee waxtu julli di jot ndax timis la ndax gee la waaye daal lu mën a xew waxtu julli bëgg a jot daal la ndaa waneen waxtu ci mën doon waaye ba mu agsee jël kaalaan ba bokk ko sukk ci ay bëti woomam Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasuul taalal ko loxoom ànd ak bég lool mu saafo ante ak sëriñ bi sëriñ bi bég lool mbégte ma tax na lam ko jëkk wax ma ndax fàttaliku nga bi seen nekke woon ca boori kër ma kala te foofa nag ak lu na fa taxoon a daje xeetu ormal ak teral sëriñ bi ñaaw defal na ko ca loo xamante ne bii seet na xolam te yéem na ko waaye jaamante baag nuyoo baag maslaama benn waxtaan wi jotu caa dolli ko ñu nodd bi ñu noddee dem julli ji biñ jullee ba def lawraadee ba sëlmal ba mu amaat jataay ak sëriñ bi sàkku ci moom ndigal ni ko damaa am lu ma la bëgg a leeral bu ma ci amee ndigal sëriñ bi ni ko bismillah mu ni ko maa ngi lay xamal ni jóge gi nga xam ne moom laa jóge mbaakol maa sama àndandoo yii darab ba ak jafeg yoon wi dara waralu ko lu weesu sa jëmm ju sell ju tedd ji ma bëgg rek agsi def la nga nekk sama wasila ba mu waxee loolu yëmu ca ni ko man ak samay bokk daja nañ seet nañ nañ gisuñu kenn ku nu gën a doyloo as yow si amat bamba xadim sa ne ko wali ma sàkk ma annakum antum ahlul quran wa ahlul quran hum ahlullah moo loolu ko war te yéen yéene ñooñu alxuraan te ñooñu alxuraan ñooñu ñooñu yàlla sëriñ mayaa ni sëriñ bi man naa laa wax ju wax ju leer naa ñu joxane benn lëntul ca ne loolu mooy dafa am juróom-ñaari pays suñu borom yoo xam ne dama cee dem ak a dikk de mosuma laa fekk ci benn mosuma laa fekk ci benn ma gis ne loolee nag gën góonu gën la sëñ bi wax ko ne ko wax nga dëgg de nii nga waxe day ñi ci kaw suuf buñ ci àndandoo woon ak yow dëppoo ci ak yow kon ñu am yiwu àdduna ak wàllaxira kon sëriñ bi nangul na ko def na njébbalam foofee ca gànnaar bi nga xamee ni nag loola jàll na bu laaj na ko seen bi terale ndax teraanga ja yaatu na lool rëy na lool am na it ak cafoo boo safoo boo xam ne safoo dana yaatu waaye bu ci àgg neexuta am mu sax ca ay fan ba mu ca saxee ay fan ba mel ni kon ngan gi war naa jeex li war a des mooy waajaat ngir delluwaat mbaakol kon mu defati nam defoon sàkkuwaat ndigal ci sëriñ bi ngir mën a waxtaanaat ak moom lenn ci ay pas-pasam ak i bëgg-bëggam ba ko sëriñ bi mayee ndigal la ma delloo ni ko barab bu sell bu tedd bi ma la fekk ak seen jëmm ju sell ju weegu ji ma jàkkaarloo maa ngi lay leeral ni barab bi moom waralewuma ko ak madinatu munawwara bi anwaari sayidi waladi aadama sallallahu alayhi wa sallam julli bi ma agsee julli gi ma njëkk a julli ak yi ma jiite yépp waralewuma ko ak man julli goo xam ne dama ko julli ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sëriñ bi baamtuloo ko mu baam ko mu baamtuloo ko mu baam ko mu baam ko ba mu ñetti yoon sëriñ bi ni ko maa daa xalin sakku bi ànd ak mu xeq oo ma benn lu may nattale ci li nga wax lu dëggu ci yow maa ngi lay xamal ni alxuraan ak hadis ba may jóge Sénégal dugg ca gaal jéeri ba dugg ca gaal géej bay tollu konga falañ ma dabe ba ñu ma dabee ma laaj leen yéen luy seen tànk ñu ngi bëgg ànd ak yow ndax fee ci réew ma kat ña nga nu fay jàng sax waaye dañuy fo foye te dinu yàq sëriñ bi ne ma digle ne dama bëgg ngeen dellu ngeen ma fa damay dem te dellu si bu ma dellu see kenn duutu leen faye kenn duut leen yàq feeg maa ngi ci kaw suuf kon nag ma ñaaw na nga xam ni alxuraan moom sama moomeel la ndax sun borom ma ko may ah loolu kat neex naa dégg ndax day gis ci lenn ci bind sëriñ bi mu wax ne lettre alxuraan yi nga xam ne kenn mënta xam la muy firi muy alif laam mim yeeg alif laam raa yeeg xaa mim yi am na alif laam mim goog day ba mu koy firi daf ne sun boobu moo ko firil moo ko aw firil liif gi ci awrastukal kitaaba firil ko laam gi ci làqantukal kitaaba firil ko miim mi ci malatukal kitaaba kon dafa mel ni li ñu alkansu samin ndàmb lu duuf lu seer lu foor moom la si Ahmadu Bamba am amaale ko nag ay muritam ak soppeem dama wax ne lii ko sëriñ bi waxoon ne ko na nga xam ne maa moom alxuraan rafaatale naa la ko ci jataay boobee waraloon na ku siiw ku baax borom xar baax ya karama ya di alhaaj Muhammadul Fadil moom day na mu déggee wax ja da ko naa dundee ba xawma fan ci réew mi waaye waa mbaakool mënuñoo fay sëriñ Fall rawati waa kër Mañaar ndax doom yépp ku ci ne fu la mën a jaarale dafay mel ni baati na xar baax boobu nga xam ne moom la sëriñ bi defoon la nga xamante ni bii war nañ ko cee jël dañ leen yabal ñu jaar ko ba jël ko te dëggal wax ja ak safoo ko ak dund ko ak dundal ko mu andi mu andi loolu kon sun borom mom mom ngëneel ngëneel nga ci loxom wa na fadl bi yadillah yuutihi ma yasa ta joxna na ko serigne ma ñaaw ci barke serigne touba ak baatinub serigne touba ak ngëneel serigne touba ngëneel loola yalla sax dak ci njaboot gi di baawaan kenn ko ci ne am ci gi jël ci barke sama sangal serigne sallu ma sha allah jërëjëf serigne bi ci leral yam solo yoyu nga xamne indi nga ko ci sëriñ ma ñaaw ci ak jébbuloom ci sëriñ tubaa euh, mu mel ne mag ñi baaxoo noonu saa suñu gisee ak sëriñ bi am ay bis yu koy laaj euh, ndax mën ñuy leeral tuuti rek ci bis bi nga xam bis yi nga xam ne sëriñ ma ñaaw laajoon na ko sëriñ Touba Xaadim Rasul waaw moom day foofu ci li ma gën a sawar a nett li la bokk ndax boo dee gëstu loo xam bari di ko wax lu ne da ngaa war a da nga ko war a mën a andil ay adilla ak isnaadaar yoo xamante ne fii ku ca bëgg a man caa jaari dama ànd ak ku ñëw fanu sekk dem siyaare ku baax di sëriñ daam atta doomi sëriñ ibrahima moom sëriñ tubaa sëriñ daam di ko labir di ko bari xam-xam te mën a xamle te lam ma nettali ci jataay bobu nee na am na bis bobu day sey meew dafa ñew ci serigne touba ni ko dama lay laaj bis bu ne lu ci gën ndax ma def ko ci sey mi ko ma ndax lolu xamoko ko mu ne ko lama ma fu dul yow duma ma ko yemale ak lima ma fi yow ne serigne bi ni ko del tukki bisu altane di tàmbali talaata di daloo àllarba di fóot alxames di ñaan ajjuma di watu dimanche di watu gaawu tey sant dimanche kon loolu ci kan su sam ci ci kunu su ah, yi la bokk muy ndàmb yi nga xamante ne bii may na cee jariñoo waaye nag dox ba far ko yombul danga koy jëlee fu ko mat te wax di leer na màññi mu wax ko ni ko deel tukki altane di tàmbali talaata di daroo àllarba di fóot alxames di ñaan juma di watu gaaw di sant dimanche kon yooyu kàddu moom ci sëriñ Atta moom Ibrahima moom xaadimu ko jëlee waaw xanaa daal euh, bala ngay dooli baneen ma waxaat ci beneen xar baax boo xam ni neex naa dégg ndax lu baax lu baax la tudd te lu baax bu ko suñu borom nangoo bul xam fu muy yem dafa am benn bis su meew toog fi kanam si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ni nga xëy ne la jàngkat baaxoo def jël loxoom bu sell ba teg ci suuf rëdd rëddaat rëdd rëddaat sëñ bi si kat xool ko ne ko ma ñaaw lii ngay def loo ci jublu mu ne ko dara mu ne ko mu kala dal muy def te jublu ca dara bu ko mënee bàyyi moo gën sëriñ ma yow daal dina la mu la mu rëddoon tomb yam tomb doon sëriñ tubaa ne ko noonu yi ko fare ne la la sunu borom farale say bakka te boobu xese nag maa ngi ko jëlee ci sama waju sëriñ sumbul si la mu jëlee ko ci wajurum sëriñ ma jamal si la mi nga xam danañ ci dikk ndax ko takkoo awoon ak sëriñ ma yaaw la ne ko ñaareel bi doomam waaw macha allah jërëjëf sëriñ bi ci leeral yam solo yi nga xam ne indi nga ko ci bis yi nga xam ne ko baax ki joxoon na ko sëriñ ma ñaaw euh, njëkkante waxtu rek waaye laajaat tamit ci njabootu sëriñ ma ñaaw si la hmm. foofu nag géej bu xaw a jafe lay doon waaye moom fekk na bokk na ci li ne ci téere bi nga xam ne dama ko bind ngir mbirum sa meñaaw ngir laar len ci njabotam nak dama lay wax ni mon nako ko rek ni la sey Madou Matar sey ma jama sey Cheikh la sey Abdou Bar waye dama def ni ko gën ni mu gëné moy lu tambalé ci soxna yu sel yi sëñ ma de ko won de ko na soxna suñu wax soxna mam Fatou Diop soxna mam Fatou Diop mo jur soxna Fatou silla ak njabotam nga daru mën mo jël jur serigne Mokhtar Sylla mi jur ki nga xam ne bi biñ ko mujjee gis ak léegi ñetti at lay toll bi manqué di Serigne Balla Sylla nga xam ne xalifa bii fi nekk moo topp ci ginnaaw di Serigne Mapate moo jur Serigne Muxtaar Seynabu Sylla mi juróon ku baax ku mënoon a jaamu yàlla Serigne Mewu Sylla ak sëñ Ñaxal Sylla moo juróon soxna suñu wax Ndey Aram Sylla mi nga xam ne ba tey noonu ma waxee ca soxna Faati moom day aram it ak njabootam ña nga mu nekkoon ak jarbaatu sëriñ Mañaaw bu ñuy wax seen Mbàkke Jaxate bokkoon na ci soxna yi mu dëkkoo ne ko ñuy wax Penda Yéeri Jaxate Penda Yéeri Jaxate moomu nag moo juróon koy wax sëñ Matar Saafara ci tënk ak soxna suñ daaw soxna Jëng Silla bokk na ci ñib dëkkoo ni ko ñu wax xarit jaara jaxate moo doon na ci ñib dëkkoo woon it ku ñuy wax soxna soo sooda Jóob soxna sooda moom nag moo juróon ku ñu daa wax soxna jur sëriñ Abdou moom sëriñ Basilla moom soxna moo jur sa Aliou Silla ak Roqee Silla Roqee moomu soxna la woon ci sëriñ Tayba Touré bokku na ci ñi mu dakkoone ko ndaw soxna aminata silla moo jur sëriñ cheikh silla mi nga xam ne moo jur sëriñ ma ñaaw mee ne ca dëkk ba di yili ca ak sëriñ ma mi nekk tuba moo jur maanaam soxna aminata silla moom moo jur maam asta silla ni ma waxee léegi damay bañ mu am lekk dama ne soxna aminata silla Sylla sax laay wax moo jur Serigne Cheikh Sylla Serigne Cheikh Sylla moo jur moom soxna Aminata moo jur maa osta Sylla mi jur ku baax ko sell kii yilif kër Mañaaw yilif Mbakol Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdoulaye moom soxna Aminata moomu nag amoon na doom lu jiitu muy ñëw ak Serigne Mañaaw yu ñu doon wax Penda Lawbe Sylla ak Aliou Sylla jublu ma nag ni ni may tuddee soxna yi ni leen toftaloo soxna yi mas a loxo ci loxoom rek laa jubloo ak tudd ku fa am njaboot ma tudd seen njaboot noonu bokk na ci ñi mu dëkk woon moom Serigne Mañaab ku ñuy wax soxna Ami Sylla waaye moom nag amu fa doom mooy waajuru sëñ Cheikh Kajoor da koo nekk soxna si yor soxna ko jàppaate soxna ko jàppaate moom nag moo jur soxna Mariama Silla ah, te yaakaar naa ki nga xam ne lu bare bare ci yii ci moom laa ko jëlee di Sëriñ Matar Silla hmm, ñàkkul ak mbokkam waaye danañ agsi ci moom daal waaye daal soxna ko jàppaat daal moo jur soxna Mariama Silla bokk na ci ñim dëkkoo wane ko wax sëriñ ma jama Silla ki jur sama waajur di waajur sëriñ ma Faati nekk tey di xalifu sëriñ ma moom Bintu Silla moom itam moo jur maam ndaat Silla mi jur sëñ Modou Abib mi nekkoon Kër Mandoumbe maanaam ba tey bokk na ci ñu sëñ ma ñaaw dëkkoo woon ku ñu wax soxna Astu Jeng Jóob moo jur ko ñu wax maam Caan Silla maam Caan nag moo jur soxna maanaam sëriñ Ceerno Silla mi waajuru sëriñ ma ñaaw fi nekk tey ko baax sëriñ ma dëkkoo na soxna suñu wax soxna Xuja Paate moo soxna mariama silla soxna mariama silla moo serigne matar sill mi nga xamni lepp ci waxtaan ci mom laa ko jere serigne ma jama silla ma tuddu léegi itam ngan gu siiw googi sëriñ doon ci yeen jolof ba mu cey dem dafa jug bay dem dal di ah naa lu ne bam dess teggi borom de dem ba gis am ci yaram tàggatoo ak mom xamal ko yete ko bax kala ka jëm bëgguma ak ma di la laaj may naka manako wala manako gis na la di waxe won ko kero nag sëriñ ma ñaa am na lum laaj maam ci am nee ko yéen ñi bokk ak sëriñ bi mbiram day noonu danoo jaaxle xamunu nu mu ndax ngeen tane nu ci gën nu ko leeral ne maam Thierno ne ko mbiram da nga mi ngi mel ne kaas karab ñeenti koñ def ñaari bunt ni ma la ko benn misaale bunt bii si Abdou Khari jaar na fi jàll bunt bii si Amadou Diagne jaar jaar na fi jàll amuñu lu may nag fu buntu lekkutoon ñu ne fitt fa buntu ne ko fii yaa fi jëkk jaar fii yaa fi muy jaar ak taalibe rek lañ si xam moom ñii ma tudd nag waxuma ne ñoom rek a jaar ci loxoom waaye ñooy ñi ma leer ñu ci ne boo leen néegu ngor ak askan bu baax a baax ci lañ dëkkoo te wax nañ seen meññaa bokk na ci kàddu yi mu daan wax ruus na dugal ci ay wanagam nit ku sellut borom benn tànk mbaa ko ñuy gàttal ci dara kamay dëkkoo daal ku set lay doon ku sell lay doon ku ñu xam cosaanam lay doon ku ñu xam askanam mbokk lay doon ku taqoo ak mbañ lay doon ku takkoo ak jikko yi gën lay bo doon ku mucc ci jikko yi ñu sikka lay bokk waaw